waxoon na ci ndax saraabiyan la wakam wakam wakam xatta alhija min majidi di rutbatin qaasa wa qadrin samiqi misla alrabici wa bani alajlaani ma bani numayrin jamaraati alxaraq saraab bi baaxoon na ci de wakam xatta bare na bu sippee alhija ay ay hijaa hijaa u mooy xaste ci way te kookoot way la ah comme hijaa u way way ŋàññ yooyu bare lu mu sippi min maajidin ci aji tedd zi rutbatin ku doon boroom daraja qaasa bu dëgër bu am doole qaasa qaasa u danañu ko jëfandikoo ci maana ni ki garaat bu kawe rek si jub waaye qaas qaasa u moo doon ko kuy dóoxlu di bañ nanguwula ommatu nanguwula ommatu dirin tey boroom daraja samiqin ju kawe misla rabii ni ki waa ji doon wax rabi wa banil ajlaan ak banu ajlaan ak bani numayr bani numayr moom tuddoon nanu ŋàññi ga leen waaj xasoon ba mujj ñu rus rusatee wax ni ci bani numayr lañu bokk soo ci dajee kenn soo ko nee foo bokk mu wax beneen giir ba baleen waaja taggee nag ca baytam wa noon nga qawmun humul anfu wal adnaabu xayruhumu wa man yusaawi bi anfi naaqati zanaba booba la ñu door a siggi ba sawara wax koo ci wax ni foo bokk koo ca dajeel mu sawar a wax ne bani nu may ba bu koy wax sax di guddal baat ba bu baax a baax jamaraatil xaraq jamaraatil aw nit la ko laqabe xam nga mooy ay maanaam ay laqabu ay nit la jamaraatul xaraq nit ñu ñu ko laqabe te teewul ñoom it siiwoon nañu ba ñu tudde leen xali xali lak xam naa njàmbaaru xare doon tax waaye way saboté woon na leen ba tax ñoom seen daraja wàcc te kon ni nga yëkkati nit lu am solo ko man wàccee nit it lu am solo ko man kon way am na solo noonu rek la bëgg a wax moom ah, law lu tegu law lam yakun law lam yakun li shi'ri ah, inda man mada fadlun ah, ala alkaabati lam yuallaqi law lam yakun su nekkut woon li shi'ri ñeel way fadlun ngeneel ala inda man mada ca ña passé ñu jëkk ñi suñu nawul woon way mu am solo fi ñoom kon lam yuallaq daaw daaye su ko di aj di ko denc alal kaabati ca kaaba ndax kaaba ga la jëkk lislaam lëf lu nafiis lu foor lu cher la ca Quraysh di garde bañ mu sànku ba di ko fa daan te am na ci way yu rafet yu ñu fa daan aj ca kaw di ko fa denc moo tax ñu tudd leen muallaqaat muallaqaat xasaid yooyu juróom benn xasida yooyu nga xam bokkoon na ci rafet gën arab yi gën rafetlu ba bëgguñu mu sànku mukk ba tax ña ca man bind ñu bindoon ko ñu denc ko di ko aj kaaba ga loolu mooy taxoon ñu di ko xasaidul muallaqaat yu ñu yu ñu ajoon ca kaw kooku kon am solo tax ñu doon ko wattu law lam yakun fiihi bayaanu ayatin maa fussirat masailu bnu lazraq dégg nga ah, nee na ah, bu fekkoon ne aaya ah, way dégg bu dul woon man firi ay ay alquran yu bare yoo xam ne ay alquran dégg nga lënt daana ci am léeg-léeg yoo xam ni ku xam way ca koy mën a jëlee lu la ko leeralal ni ki ibnu abbas nee na law lam yakun su nekkul woon fii ci way bayaanu ayatin luy leeral aaya alquran maa fu sirat kenn du firi mukk masailul uh, ibnul asraq ay laaji laaji naafi ibnul asraq raisu xaari la naafi ibnul azra nee na kooku ay masalaam laaj-laaja yi mu daan laaj abdullah ibnu abbas ci alquran nee na bu dul woon biralug laaya dafa dikk ci way kon deesul firi laaya moom dafa junji rekk ni euh, bokk na dafa bëgg ni lii tegtale ni way am na ngëneel daal naafi ibnu azraq bare na ay kalimaat ak i wax yu mu laaj ci alquran ku ko ko firil ibnu abbas ni ko ah nangam lay firi xanaa da ngaa déggul waxu woykat ba diw nee na nangam ak nangam ak boo demee ci eh, dégg nga tafsiru maasur bu ñuy wax maasur loolu man nga ca dajale lu kenn xamul lu mu doon ci bari bu ko nee nangam rek mu ne ko nangam la firi xanaa da ngaa déggul eh, eh, naafi ibnul asraq raisun firqati alxawaarij almaaruf bil azariq turam sax la ñu leen tudde na maa huwa illa kil kitaabati wa ma fadluhuma illa ka samsil ufuq maa huwa déet moom way daal illa kal kitaabati comme moom mbind wesar ñooyam rek ah wa ma fadluhuma seen ngëneel ñoom ñaar nekkut lu dul illa ka chamsil ufuq ni ki jant bu ne ci gox ñëpp kuy gis war gis seen ngëneel kon woy moo mbind mu dul woy ñoo ñoom ñëpp ñooyam te xanaa woy la ñu doon wax waaye mbind bu dul woy wesar kay moom fadloom kenn laaju ko woy kay xanaa la doon saxal ni lu baax la lu am ngëneel la ba tax mu aaja waaye nee na ñoom ñëpp a yam fa kalaamuhu nee naa woy moom xasanuhu xasanun wa qabixuhu qabixun moo lu dul woy ñooyam wa innama nuzziha anhum annabi dégg nga li yudraka al ijaazu bi taxaquqi wa innama nuzziha ni ki dañoo soreel annabiyu yonent bi anhuma walis leen taalif mutlaqan moo xam lu ñuy wesar la wala lu ñuy woy la yàlla soreele na ko ko li yudraka ngir ñu mën a jot li ijaazu ijaazu alquran bi taxaquqi ci wóoraliku ndax su fekkoon ni taalifkat la boo xam ni dafa doon baliix bu yor xalimaam mën a bind ci balaa xam lu muy bind kon kenn kon alquran déesatul mën a tëb-tëb xam ni mujisa la waaye suñu xamee ni moom ferul ijji mënula xam lu ñu bind boo ko bindee jox ko du jógee ni moo koy mën a liir xam li ngay wax ah su doon leetar dañu ko koy jàngal waaye moom du ko yër di ko xamal boppam kooku kon kenn du defee ni war na bind téere bu mel ni alquran ci li ci ne ci balaa nee na kon jombale gi ñu ko ko jombale ba yàlla naan wa maa allamnaahu shi'ra wa maa yanbaghi la loolu mooy dalil ni alquran kon fa yàlla la jóge ndax nit ñi mën a bind mën a wax kenn mënu cee def lu ko jege wala lu ko niru kon ki mënu la bind jàngul su ko indee ni yàllaa ma ko jox ndax loolu du dalil bu mënoon a bind nag boobul dalil day daal di fooyooy kon ummiyaam gi moom mooy mooy mooy mooy aaya ci risaalaam bi fahim bihi fa innahu laa shakka unwaanu alxijaa walfadli waltaxadluqi fahim bihi maanaam na nga ca na nga ko ittewoo ba mel ni ku nekk ci hayamaan kuy taxawaalu gox gox yu ne nga jëm ca kullu waadin fii fahim bihi na nga ca na nga ko fonk ittewoo ko fa innahu ni ki moom laa shakka amul benn sikk unwaanul xijaab mooy adresse bu xel mooy tegtale ni kii ku ñaaw la wal fadli kuy boroom nga ne la wa taxadluq ba tey ku ku ku ku ñaaw la ku xada ku am xizq la xizq mooy ak ñaaw ak uh, xerañ laam gi dañu ko cee dolli ngir di mubaalaxaat xadlaqa asluhu xadiqa yaxdaq wa huwa iksiirun wa tadbiirun liman raama istiyaada wariqin bi wariqi min gayri taqtiirin wa tasciidin wa takliisin wa tartiibin wa qatli sabiq nee na wa huwa moom iksiir la iksiir xajarul xukam xukamaa yu xawiloona bihi almaadina ila gayri iksiir daal ah, ñi ñu doon wax xukama ak te itam ñi ñooy ahlu kiimiyaa kon ñi nga xam ne ñoo xam fànnu kiimiyaa te mooy fànn gi tubaab yi tudde chimique chimique mooy jàpp maadin yi di taxwilu baadiha ila baadin di boltaate ak di taxle ak di ci def yen eh, yeneen yëf yu tax maadin bi mën a soppi ku mujj def nangam seetal suuf ñu tibb ko am yu ñu koy jaarale fu ñu koy def ba soppi ko mu nekk liquide bu ñuy wax acide wala ñu soppi ko mu nekk engrais yooyu moo loolu mooy fànnu chimique kimia kimia baatu kimia bi bindinu ci ki langue yi moom lañu ñu naan chimique kimi kimia arab ni kimia ñi ni chimique moo ne nag iksir nag xeer la woo xam ni ci wañuy lëg wa leen di dimbali ci liggéey yooyu ci la woy nag ma ngi mel ni iksir la ci ko xam ni dafa bëgg a yor kayit wu dara nekkul bëgg koo soppi kayitu xaalis seeta waxin maanaam da ngaa jël sa kayit bind ci xasida tagg benn waay bu baax rek mu jox la xaalis bu dul jeex moo tax kon mel na ne yow da yor uh, waraq waraq mooy kayit bëgg ca wariq mooy xaalis mu jinaas waraq bi wariq wa huwa iksirun wa tadbirun li man ramastiyaada waraq wariqin bi waraq iksir tadbir tadbir mooy doxalin wa li man raama ñeel képp kay bëgg a def kay sàkku istiyaada wariqin nu mu rëbbe xaalis bi waraqin ci kayit yor kayit bëgg caa bëgg koo xaalis eh, te nag doo ci defante coono yi kimia chimique yi di def min xëyri taqtirin ci lu dul taqtir maanaam ndox mu ngay gut ay gut yu ngay sot wa tasidin looloo tam ci seen jëf la wa taklisin looloo ci seen jëf la dégg nga wa tartibin looloo ci seen jëf la tartib yolamal tooyal taklis dëgëral ba mu ne kils comme xajar tascid mooy yéegal jëm ko taqtir mooy loo ciy gut yooyu tur yi ay liggéey yu ñuy def la xëy na dafa am liquide bu ñuy yu a bu ñu koy liggéey ba tax loolu ñu tudde ko taqtir tascid taklif waqat li zibiq ak rey zibiq maanaam rey ko togg ko ba mu seey nee na yooyu yëpp du ca am maanaa jëfi chimique yëpp du ca am xanaa da ngay jël kayit yi rek fexe ba soppi ko xaalis te yi yi ñuy def ci suuf yi ba muy soppi ko maadin du la ci fekk nee na way mooy ijsiiru pour lool wa kun lahu raawiyatan kal asmaci waljahlu awlaa billadi lam yasduq wa kun nekkal raawiyatan di ab riwaayakat lool way kal asmaci ni ki asmaci abdumalik ibnu qoray dégg nga raawiyatu nag taa gi lil mubaalaxati tegtalewul ni jigéen la déedéet ki muy waxal góor la raawiyatu taawul mubaalaxa la wal jahlu nee nañ réere nag ñàkk xam jàpp doyloo ko awlaa moo gën yàlla billadi ci waykat ba nga xam lam yasduq dëgguwul day wax day fenn ci ay ah. wa walaka fi man kaana misla al amawiyi uswatun bi haqtada kullu taqi walaka ñeel na la fi man kaana ci ka nekk misla al amawiyi comme amawi amawiyu kana ku mu ci jublu walaka iswatun fi man kaana misla al amawi foofu looloo tax sara bi baax ndax ay xisa lay junj yoo xam ne fokk sara bi moonu koy mën a leera la dégg nga ndax amawi yu yaatu na Ousmane ibnu Affan amawi yu la keneen ku dul moom amawi nee na mën nga roy ci ku mel na ama yu bi bi ah, ci loola iqtadaa la rey kullu roy kullu kullu taqiyin bépp aji ragal yàlla هذا هو المجد الأصيل فاتبع سبيله على الجميع ترتقي هذا lu mel nii nu wax هو المجد الأصيل moo di tedd nga gu cosaanu فاتبع toppal سبيله yoonam soo ko defee tartaqi nga kawe yéeg على الجميع ci kaw sa moroom yépp wa in aradta an takuna shaa'iran fahlan fakun misla abi shamaq-maq wa in ta aradta soo bëggee nag an takuna nga nekk shaa'iran di waykat fahlan bu di kuuy bi maanaa ndaanaan lañ ci jublu kon fokkun nekkal misla abi chamaqmaq mel ni ki waykat bu ñu doon wax abu chamaqmaq waykat bu adib bu saf xoram la woon ku te bare ay kaf te buur buuru Maroc ba mu tollal jamono fonkoon ko lool maa xiltu fi l asri lahu min masalin siwa abi fi maghribin wa mashriq maa xiltu jortuwuma fi l asri ci jamono ji jor ji jinu ne jortuwuma ci min mislin benn kem lahoo ñeel abu shamaq max boobu nga xam ne waykat boobu mu lay wax moom nag jiitu woon na ba passé jamonoom du jamono bi ibnu wannaan nekk neen ibnu wannaan neen sunu jamono ji jortuwuma ci kenn ku war a yem ak abu shamaq max boobu si waa abi lu dul sama baay dafa bëgg a def taxallus jëm ci eh, tagg baayam jóge ca dem ci tagg buuru jamono bi moom loolu yëpp taxu ko jóg moo ni jortuwuma ni kenn dana doon moroomu abu sama mag ci sunu jamono siwa abi lu dul sama baay fii mashriq maghribin ci réewi sow wa mashriqin ak réewu penk dégg nga kazaaka xanaa lizaaka laa xamoon lizaaka billaam yow kazaaka kaamoon lizaaka man dama xamoon li lizaaka pour loolu moo tax li nga xamee ni sunu jamono sama papa dong moo ci yem ak moom lizaaka looloo tax kannaahu kun yaale woon sama papa bihi ci abu shamama ni koy anta daal abu shamama dégg nga waaye ma ngi bëgg a def taxallus dem ci buur bi muy teg de li zaaka kannaahu bihi looloo taxoon di ko kunaaya di ko tudde sama baay sayiduna sunu sang alsultaanu izzuddiini taajul mafriqi muhammadun sibtu rasuli xayru man saada bi xusni xalqihi wa xuluqi ani amira almuminina bna amiri almuminina bna alamiri almuttaqi waaw door a sottiku na ko loolu mooy taxallus fexe na ba dugg ci tagg buur bi kenn xamul sax fu mu jaar ah, ah, looloo tax sax sama baay mi nga xam ne moom dong moo mel na abu samaq-maq looloo tax eh, sayiduna sunu sang bi tudde ko ko sultaanu buur bi izzuddini fi nga xam ne mooy zuddin te da ngay diine maanaam dañ ko ko defal tur taajul mafriq moo mel ni ki mbaxane ci kaw bopp mbaxane buur ci kaw euh, pàq bopp muhammadun muhammad mooy bu buur sayiduna sibtu rasuli kay sëtu yoneen ahlu bayt la bokk xayru man saadak mooy ngën ji koo xam ne nekk na kilifa nekk na sang bi xusni xalqihi ci rafetu bindu jëmmam wal xuluqi ak rafetu jikkoom ani ma jublu ca amiral muminin bii nga xam ni mooy ibnu amiril muminin bi nga xam ni kookaat mooy ibnul amiri doomu amir ba almuttaqi ba aji ragal faqad warisal xilaafata an abain dafa doon xilaafa ga ci ay baayam mooy amirul muminin di doomu amirul muminin di doomu amirul muminin xayru mulukil garbi min usratihi wa gayrihim ala al umumi al mutlaqi xayru um-, mulukil garbi mooy ngën ji buuri soowu jant yëpp min usratihi ci famiyam wa gayrihim ak ñu dul ñoom ala al umumi ci matale al mutlaqi gu ñu boyal wa dawxatu lmajdi alladi axsaanuha biha al aramilu zawu taalluqi wa ah bisimillahi wa dawxatu lmajdi mooy ndiijaanu tedd nga dawxatu mooy kullu shajaratin azimatin garab gu gën a rëy mooy dawxa amul xeetu garab guyag kàdda gi yooyu amu ci garab gu mag a mag rek mooy dawxa dawxatul majdi nee na moom moo di daw ak majd ga mooy cosaanu tedd nga garabu tedd nga gu gi la di gi nga xam ni la ti arsaanuha ay caram ya eh, al aramilu way ñàkk ña za woo taalluqin waroomu jafandu lañu bihaa ca caram ya lahoo ñeel na ko mu yaa kanam goo xam ne daa a na fi aw jid du jaa maanaam ci eh, biir ci kaw lëndëm yi kon fi awdiya ah, sanaahu sanaahu kii dafa niroog laam laam ndeke ah, ah, daa a leer na sanaahu leeram fii aw jiddu ja mislu xamari comme weer al muttasiqi wa di aji mat ba ron noonu wa raaxatun taxaaru min suyuulihaa suyuulu wadqin wa rukaamin mutbiq ñeel na ko it lahoo ñeel na ko dégg nga raaxatun ténq ana fu mu jëkkoon a waxee lahoo la waaw ah, lahoo muxaya ca la atafit mu kon raaxatu ci muxaya la ko at wala hoo raaxatun tinq ci tabe loo xam ne taxaaru dana fiir min suyoolihaa ci wali may yey jóge ci ténq ba dana ko mujj añaane sax dana ko fiire suyoolu watqin ay wali taw dégg nga wadaqal mataru wadqan ay wal yu jóge ci taw sax te bëggoon a gën a bare lépp luy wal dana mujj añaane Eh, wal googu nga xam ni may yi da koy wal jóge ci ténxam la ci tabeem ga day gën a bare wali taw yi ba wali taw yi day mujj sax di ko ko añaan suñu dee mu faaxar loolu mooy taxaaru min suyuliha suyulu wartin warukaa min ak xiin wu fatt woowu mu rankaloowu mutbiqin wu di aji wupp asamaanti faaqa rachida wabnahu bi xilmihi wa ilmihi wa ra'yihi almuwafaqi faaqa gën naa kawe rachid haaruna rachid wabnahu ak doomam ja Maamun ku ne xam na seen nawaadir ci ci ci ci xikma amma Haaruna Rachid tadbiiram gu mu mën a doxal xukuma ak ak ak siyaasatu réew kooku ku ñëpp xam la doomam Maamun itam noonu boole xam-xam baag tey gaag sago sa wa a nee na kawe na Rachid ak doomam bi xilmihi ci sagoom wa ilmihi ak xam-xamam wa ra'yihi ak science am al muwaffaq ba di bu ñu dëppaleeg njub wa saada kaaban wabna suada wabna judaana wa xaatiman bi badlil waraqi ci wàllu tabeet ñi ca gënoon a siiw raw na leen ca saada yilif na mujj na nekk sangu maanaam gañe na rek kaaban kaabu bnu maamata ak ibnu suada ak ibnu judaan kenn ci ajwaadu quraysh ci makka dégg nga ak xaatimu taa'i yooyu ñëpp moo leen kawe bi badilil waraqi ci joxe xaalis walam yada maanan li maanin fi nada walam yakun ka mithlihi fi lxuluqi nee na walam yada bàyyiwul maanu bnu zaida kenn ci ñi gën a tabi ci arab la bokkoon moomi maanu moomu bàyyiluwu ko benn maana xam nga dafay jinaas nag walam yada bàyyiwul maanan benn maana li maani bnu zaida maani bnu zaida bàyyiwul maanan li maanin maanin bu ñaareel bi kon turu nit la bàyyiwu ko bàyyilu ko benn maanaa fi na daa ci tabi walam yakun te nekkul moom maana ka mislihi ni ki kemu buur sunu buur bi fil xuluqi ci jikko yu baax muskaana tiflan wa samaahu dabuhu wa gayra maxasi sana lam yacshaqi nachaa fi xijri alxilaafati wa mushabafatan bi gayriha lam yaclaqi muskaana tiflan diiru li mu nekk xale depuis muy nekk gone wa samaaxul ak tabe da buhu moo doon aadoo dégg nga wa lam yacchaq musta bëgg sopp mukk xayra maxasi sanaa lu dul jàppukaayu tagg maanaa lu dul yoonu tagg woo xam ne jëfe day jëfe loo xam ne foog dañ ko koy taggee lu ñu koy mën gërëme daal musta sopp lu dul loolu nacha ama ngi màggee fii xijril xilaafati ci kiiraayal xilaafa gi wa mu shabba diiru li mu màgg dégg ba nekk shab war am ay fukki at ak juróom-ñett jëm kaw kooku nekk na fatan di waay jooxaani lam yàlaq musta aju bi xayriha ci lu dul xilaafa affaire ku nar a falu rek loolu la moo di soxla dégg nga fa baayaathu naaru tur turran dafatan lam yaku fiiha ahadun bil asbaq moo taxit ba nga xamee ni war na falu kenn wuutewul ñëpp a jaayandanoo ñëpp jëkkantee falu soppoon taxawaayam fa bàyyaathu moo tax jaayanteeg moom annaasu di ña turran ñëpp daf atan benn jañinte loolu lu daan jafe la ci bu buur bu mag daanoo bu beneen bëgg a jóg taxaw nit ñëpp d'accord andoo ca daanaka doo ko gis nag ñee day nangu ñee bañ waaye nee na nit ñëpp a nangoondoo daf atan benn jañin lam yakku nekkut ahadun kenn ci nit ñi biir asbaqi doon eh, aji jiitu fii ci jaayante ga ah xam nga ni loolu tëgg a tax nag waaye loolu mënut am de wa atiyat qawsal ولا وأعطيت قوس العلا قوس العلا من قد برى أعوادها رعاية للأليق فبقى وخني ba nga xamee ne amir bi muy tagg waxtoom jot na moom lañu fal mbir ma door a dem ci loxol ka ko yelloo nag dëgg nag loolu la arab daan lu mel noonu la daan def ci masal naan atal atayta al xawsa baaniyaha wa aska aska atayta al xawsa baariyaha wa askanta daara baaniyaha comme xam xaama wax na loolu mu ni wa otiyat ñu jox xawsul ulaa xala gi nga xam mooy kawe daraja googu mu ko yàlla jox léegi loolu bu doon ak xala ma ni jox nañu ko man qad bara awaadaha ka ka yettoon bantam ya masalu arab mooy ataytal xawta ba xawsa baariyaha maanaam jox nga mbir mi ka ko moom dëgg yelloo ko rek la wa askanta daara baaniyaha dëkkal nga kër gi ka ko tabaxoon dëkkal nga ko ca loolu mooy jox nga mbir mi ka ko gën a xam moom la ni wa ootiyat ñu jox xawsul ula maanaa kawee daraja sharafu pal googu daal bu doon ak xala ma ni jox nañu ko barqat baraa kayat bantam ya riayatan lil alyaqi ngir sàmmoonteeg la gën a yell mooy mbir mu ne nag nga jox ko ko ko moom fa saara fayu l adli fi zamanihi muntashiran mithla intishaari sharaqi fa saara daal di mujj fayu l adli kerug maandute maandute te mooy àtte dëgg bu fekkoon ak ker la mm, mani kerug maandu googu fi zamaanihi ci jamonoom daal nay mujj muntashiran di lu tasaaroo mislan tishaari sharaqi comme tasaaroog leeru leeru suba jant leeru fenku jant ku ne xam na ne day nar a daj suuf si moom itam kon kerug maandoom ga noonu la daal di daje jamono waa jamono fay nag moo di zill eh, ahlul luga wax nañu ni al fay u ma kaanat alayhi cham samchu fa zaalat wa zillu nag moom mutlaqan keru suba ak gu ngoon yëpp zill la tudd fay nag mooy keru ngoon ndax nee ñu mooy loo xam ne dafa doonoon naaj naaj wa dañ mu doon ker loolu keru ngoon dong lay doon du dëgg ngoon rek mooy ker goo xam ne naajo fa ci bis bi ker mujj lu loolu ker daf fa jëkkoon naaj mujj fa euh, moo tax fay u nag ñu ni mooy keru ngoon googu euh, zillu nag mooy ker waxtu wu ne fa fi zamanihi muntashiran misla intishaari sharaqi wa shaada rukna diini bi sayfi waqad xaaza bi taqwaahu ridal muwafaqi wa shaada yëkkati na rafaa rukna diini ponk diine moo ko bu doon étage la ma ni ponk diine moo ko yëkkati tabax ko mu jëm ko shaadal binaa mooy rafaahu lu mu yëkkatee ponk diine bi sayfi ak jeesi maanaam ci taxaw taxaw temm ci jihaad waqad xaaza te mbir moom gañ na am na aw làq na bi taqwa bi taqwaahu ci ragal yàlla am ci laa gañe ridal muwaffaqi ngërëmu ku ñu may tawfiq la ko boroomam di gërëm wala nit ñi di ko ko gërëm wa qad raqa fi mulkihi maarijan lam yaku gayruhu ilayha yartaqi wa qad raqa yéeg na fi mulkihi ci nguuram maarijan ay yéegukaay araja yaaruj yëg yoo xam ne lam yokku musta nekk xayruhu ku dul moom ci buur yi musta nekk yartaqi di yéeg ilayha jëm ca maarij yooya yéegukaay yu kawe yooya benn buur musta yéeg ni mel wa radda arwaax almakaarimi ila ajsaadiha bacda dahabi ramaq wa radda mu delloo arwaax almakaarimi ruuyi tedd nga yi mu delloo leen ila ajsaadiha jëm ci seeni yaram loolu luy yépp mu delloo li leen ci yaram yi leen moom baada dahabi ramaq ci gannaaw demuk dund ga ramaq moo di baqiyatu nafsi baqiyatul xayaati moo du ramaq maanaa gannaaw ga makaarim yi mel na na ay yaram yu deewoon la moo delloo si yi loolu maanaahu eh, mooy loo xam eh, lu ñu taxawal ci xaqiqaam ak lu ñu taxawal ci foo rekk fala fala mel ni statut bu ñu taxawal ko gis ni jëmm nit la te fekk du dara doonul luy dund bokkut ak jëmm ju ñu taxawal ruux ga nekk ci nee na tedd nga yi noonu la mel nit ñi daanañu ko def fala fala ci sóorat bi ci kaw waaye xaqiqa ba nekku ca moom nag moom moom moo indi teraanga xaqiqa moo tax mu ni waradda moo delloo si arwaaxal makaarimi ruuxi tedd nga yi moo leen delloo ilaa ajsaadiha jëm ci yarami tedd nga yi nga xam ni eh, yaram yu dee dong la woon baada dahabi ramaq ci gannaaw demu dund wa saadu qad alqaa asa taysaarihi bi qasrihi wa qassahu bi macshaq wa saadu texe sans qad alqaa sànni na asa taysaarihi yetu doxam wa bi maanaa aqaama rek ilqaaul asa kinaayatun an il iqaamati arab bu la bëggee wax dalal fii toogal dala naan alqi asaaka alqi asaaka alquran dikk na ci dikk na ci waxe arab yi ah maqaama ne yaquulu li alqi asaaka wadxuli ndaxte luy cosaanu loolu musaafir ci ñoom day gàddu aw yatam arab foo ko fekk amul kii kaama nga gàddu aw yatam buy dem ci seen cosaanu seen dindu aad cosaan aywa bu demee fu mu war a dal daal di ñu butti teg yet wa fa suuf toog mu nekk mujj kon ilqaawul asa nekk kinaayatul iqaaba soo gan gi dalal ak man da ko alqi asaak maanaam doonte loxo yi niin la yorit kat nee kon ci jamonoom chance daal ma ngi dal ma ngi dëkk ci bi xasrihi ci tabaxam ba këram gu rëy ba fala fala fala saadu dëkk moo tax mu ni fala sal qad alqa asa tey saari yi yetu doxam ya mu doon doxaale ma ngi ko sànni foofu wa xas wa xassahu saad jagle na buur bi bi machaqin ci cofeel achq bi ma machaq maanaal ishq rek yaa malikal yaa malikan alwiyatu nasri ala nadirihi fi garbina lam taxfuqi taabal madixu fiikumu wa zaana lii wa zaada lii wasdaana lii wa ja